mais mais Salah am na fu mu toog ci biir avion. Hmm. di tagg Sadio Mané. Hmm. di ko way. Hmm. donc loolu ñu relativiser un peu. daal ko war xam day yóbbante xam na ne coow li dina agsi si nopp Sadio Mané. ku nekk ku nekk ak li la yàlla ah, may. booy jëw gestu gis ku ñuul gestu gis ku marron di nga xam dina egg ci Sadio. non c'est que ku ne ak li la yàlla may. Euh, euh. góor gi mm-hmm. yàlla may na ko lu mu mayul ñu baree baree bari. Mm-hmm. li ko yàlla may nag baasal. Mm-hmm. <laughs> su mala di wax. Mm-hmm. day day xam lu ñuy wax baatin. Mm-hmm. moom da koy xam. Mm-hmm. muy kan. fas yeeg xar yeeg ñaawin seen. day toog fi mu toog nii di def nii. yàlla may ko teraanga joo xam ci mbaam la commencé. déggoo ma de comme borom Sénégal tour Mbaye Sarr. kalaandoo la yore woon. taxi ba tey mu yor ay biisu Sénégal. ak ay limousine. waa ji mbaam la yore woon nii rek. ci lay dem di def di di di di liggéey daal. xale yàlla nag dem mujj koo wërsëgal ba village yi nga xam ne ñoo wër tund woowu yépp bu weer wi dee chef de canton bi maanaam suñu préfet gouverneur yi ñëpp da leen di convoqué ñu dikk hmm. mu séddale ku ne li nga war a dundee ci weer wi maanaam comme kuy fay ay salaire quoi hmm. père de leen di jox lu ñuy dundee hmm. mu kooku yàlla teraangal na ko de ñëpp bu weer wi dee daal ñëpp la ñuy jubali assistante am ñëpp daal di génnee séddale dund gi village yi ku nekk delluwaat ba ci moom biir dëkk bi mu dëkk waaye ci mbaamam moom la la tàmbalee liggéey de. Mm-hmm. am ay nag am ay fas xaje ginaar yi ci kër yi din nen di teg di. mbaam moomu nag daa xëy benn jour ne nag mbir am na de. Mm. di ko wax nag. <laughs> est que xam nga ne borom kër gi bu subaa dalay yàpp dañ lay rey. Ah. ndax la waaw borom kër gi moo jékki-jékki ne waaye bu subaa ngeen defar nag bi waaye. Mm-hmm. comme ça ngeen supp ko te togg ci itam ay ceeb. Mm-hmm. par exemple tey ci àjjuma ji nii quoi bu ñu defee ko ñu euh, ne leen àjjuma yi nag mbaam wax ko ko. Mhm. mbaam daw nettali ko sawaay mhm. parce que mbaam moom dafa jege appartement wu patron bi. ndax dafa ne comme que mbaam moo indi teraanga bi yëpp. il faut ah. ma teraangaal teg ko ci condition yi baax. Mhm. di ko diw bëri. di ko toppatoo lu ne. mbaam bi mbaam bi waaw mbaam bi indi teraanga bi. àll la wala sëf. mbaam mbaam yi ñuy danak saret Ah. léegi nag mu dégg loolu nag ci appartement bi noonu di romb dégg ko nettali ko nett nettali ko nag ne ko gaa yi bu subaa yow la ñuy kii yow la ñaañee nag ne ko nag lu ciy pexe. Hmm. mu ne ko ah li ciy doo tëdd da ngay xëy tëdd ne da feebar. Hmm. ne las sa genn gi génnee làmmiñ bi jël sa karaw gi ne ko tas. sa hmm. dal ko ku la xool dina xam ne da nga feebar te xam nga ne patron bi du lekk mala bu feebar. nag xëy rek def ko waaye ñoom li ñuy waxtaan yëpp. borom kër gi mi ngi leen di dégg. Mm. parce yàlla may na ko loolu bu mala yi di wax day dégg li ñuy wax. Mm-hmm. moom it mu ne day sanctionné mbaam. Mm-hmm. <laughs> jël mbaam yóbbu ca àll ba. Mm-hmm. ci naaj ba ko ne ko comme que nettali léegi nga nekk ci sama kër gi génne leen mbaam ngeen dem yóbbu ko. mbaam nag fi ñu ko yóbbu ca tàngoor yi muy bëgg a dee parce que dund na ay at yoo xam ne ligg si lay dund. léegi nag nag romb ko benn jour rek mu ne ko yow. yow yaay jàmm lii yëpp yaa ma ko yóbbee. yow ma taxawu la may wax nga may kookali nag di xaw a reetaan quoi mu ne ko ah da ngay ree yow vrai jàmm nga yow très très dëgg nga ñoom ñaar nag ñun dafa nag mbir mu mujjee xuloo. xuloo boobu nag ci la borom kër gi nag dégg mais xuloo bi sax trop daal. muy ree moom ki sëñ bi ci boppam borom dëkk borom dëkk kër gi. di reetaan rek mala malheureusement jabar ji tëll. ne ko waa nijaay yow looy ree mu ne ko dara. mu ne ko ah dara <laughs> ah xanaa dof dalaa commencé dugg ko looy rey mu ne ko non reetaanu ma dara mu ne ko si mu ne ko non réew ma dara mu ne ko ah, boo ma waxulee li de man damay ñibbi mm-hmm. nga may ma saa baat bu dee da nga may nëbbatu léegi <laughs> wala dafa am koo doon waxal ah moom de moo gaaw xanaa dafa am koo doon nëbbatu fi dafa dafa am koo fi nekkal xanaa mu lay wax dara ngay ree commencé na koo tuumaal xam nga rek jigéen <laughs> borom kër gi jëm kaw jëm suuf madame ne ko dee boo ma ko waxulee damay ñibbi dama lay ñaan baat. waaye malheureusement jabar ji da koo mën lool. ndeysaan waaw da koo bëgg. da koo bëgg waaw lool lool lool mu ne ko ah comme que noonu la demee mu ne ko ah mu ne ko ah. li may reedee bis bu ma ko waxee tey laay wujji suñu borom. ndeysaan jabar ji ne ko deyal. waaye da ma koy wax. mais di ma ko wax mu ne ko ah boobu mu ne ko ah. borom kër gi daal di woo nag chef de canton yeeg chef de village yeeg yëpp daje ci biir kër gi. Hmm. mu ne xibaar nag laa leen bëgg a annonce malheureusement tey nag yàlla dafa dogal ne tey laa fi war a jóge. ñu ne ko jógee mu ne leen waa tey daal laa war a wuyu ji borom bi moo tax ma woon gars te xam nga ñëw ñëpp des milliers de personnes moo leen di dundal ñu ne ko waaye lii lu ko fi jar si de nettali leen histoire bi yëpp daal ni mu demee rek ñu ne ko waa léegi ba wax mu ne ah may def nee na bu ma ko waxulee day ñibbi te kii moom mu ñibbi moom man dee moom a ko gënal. ay te moom dong la yor ci jabar. Hmm? mala yeeg yëpp laa la wax nii seen yaram yi simmee ko waaye ci biir noonu nag ñu nekkee ci tristesse bi rek ginaar tëll ginaar bi ne ciix dugg si ci biir kër gi di pët pëti nag topp benn ginaar ko jigéen di ko tëbu te da koy tëbu waaw di koy tëbu mm-hmm. moom séq bi di ko tëbu xaj na ko waaye ginaar mais yow yow est-ce que wér nga yow yow xew ci kër gi tey ginaar ne ko ah man kan xam nga sama jikko quatre heures laay génn moo noonu de noonu bu njëkk rek dem <laughs> ah lafa ni rapatie à ceux qui se lèvent tôt te man kook man damay leebe tôt man man fajar laay génn dem hmm. lu fi xew xaj expliqué ko lépp ginaar ne ko mais yow xaj yow waaroo kon suñ suñu njaatige li tey la war a dee ndax lii nga ma expliqué nii kii moo ñàkk fayda hmm. kii de réccu na amal lu mu doon nekkee sama njaatige man hmm. mais kii ndeke dara benn jabar ba kóota benn jigéen kese man ñaata jigéen ñaata ginaar yi jigéen moo nekk ci biir kër gi ay poule <laughs> xaj ne ko sans poule mu ne ko ak ñaata kokk mu ne ko benn kese benn ginaar gu góor moo fi mu ne sans ginaar yu jigéen yépp man maay seen borom kër sans sans te man tawuñu ma xoola kii ma doon tëbu léegi ni yaa ma déranger ba ma taxaw ñuy nen di jaay di nen di lekk di jur di de man kese te man ngi leen di gérer normal bu timis jotee ku nekk dugg sa ngunu. téye fii ci moom lay jógee. tout. <laughs> kii yor benn jabar rek jabar yor koo rey comme ça. ñii kii kii ñii kii kii kii mais kii ndeketu dara. waaye nag waa ji xam nga moom mi ngi dégg li ma lay di wax. Ah. mu ne ko waa léegi lan moo ci solution. xaj na ko mais yow yow waa léegi lu ci solution mu ne ko <laughs> aka yomb man de su doon man la damay woo madame ne ko ñëwal ñu dugg ci biir néeg bi. waaw nag pour ma nett pour ma nettali li ma doon reetaan tam il faut ah il faut nga simmeeku ba set man tam ma simmeeku ba set comme ni ñu suñu waajur yi jure ma doog la ko nettali damay bàyyi ba ma dem simmeeku ginaar gi koy waxat bi damay ba ma dem simmeeku ba set. waaw xaaral Ahmed ginaar nu muy simmeekoo moom. déedéet ku góor ki lay wax. Ah. ginaar mooy wax loolu. moom mooy wax loolu xat. ne ko su man la. ma naan ko ñëwal ci biir néeg bi mu ñu simee ko ba set ma jël sama benn yetu guro yetu guro waaw billaahi bu ma ko ñamee ma dam benn ñamaat ko ma dam ñaar balaa ñett dana yéegi seen kër fekk na waa ji mi ngi doon jàpp daal da doon jàpp noonu nag pour ñëw julli ñaari ràkka mm-hmm. après pour wax pour tàggoo dee yetu guro waaye boobu nag fekk na mi ngi yem ci tànk ndeyjoor bi lay yemoon ci njàpp gi waaye bi mu déggee ginaar gi mm-hmm. dafa tëb dugg ci biir woowu ma dam waaye bi mu ne ko ko vip une fois vip deux fois madame ca la jaare mm-hmm. ne mes mm-hmm. teg lépp ci suuf xam nga loolu ban jàngat la weesu. Mm. Ahmed lu mu ko dóor. nga ne nga ne. yet bii la ko dóor. ban yet la ko dóor. yet ban parce que ginaar la dégg na yet ban la. est que yet la. yet kese la. lim ko dóor. bigi. ah man dama. Ah, ah, ah, ko yaasin. laa yaasin nee comprendre lul. laa yaasin. laa comprendre nee la. turandoo bi xaritu bigi la. du ma du ko kii de nee ko fay de laajte audience. d'accord moo du ko kii de. du li nga bëgg a wax du ko. la ban yet ko dóor. déedéet eh, ñaata yet am. ah fukk ah yow yet la ko dóor yatu guro de am na nu mu bindoo nag yet Biggi. mais la bay yat la ko baal ma journaux yi. <laughs> non dañ lay baal journaux yi. waaw ñu baal la ko. dañ la koy baal tey ndax ci xista gi moom wax fa hmm. dëgg yàlla dañu bëgg a bàyyi téléspectateur yi ñu bàyyi ci xel. góor ñuy waral jigéen. ak lan mooy mais asma revue bi sax dañ koy am après ci journal bi. Ah. voilà après après ci euh, journal euh, mani bëgg sa jabar moom. vraiment day man day d'accord naa ci moom. dëgg dëgg fa yàlla moom waaw. ah mais bu ko ragal. déedéet non ragal sax mënu fa am. te xam nga xanaa xamoo góor yi ñuy xas naan seen jabar da leen a mën ak yooyu noonu sa jabar vraiment. bu la mën a ko man sëy day neex quoi. sëy day neex nee nañ dafa ragal jabar. sëy ba neex na. Mhm. sëy ba neex na waaw. sëy ba neex na bu la sagalee doo ko mën a. voilà xoolal soxna Xadijatu sama mhm. turandoo ak ki nga xamante ne. Ah, mooy maam waaw waaw waaw ak sama turandoo man waaw. ak sa turandoo kon euh, macha allah. yaa si na ngi nii de. Mhm. yaas de moom yàlla da koo bañ ba da koo wutal saar. borom saar bu rëy bi nee na bo bo vendredi bi di ñëw lan nga ñuy waxtaan. vendredi. incha allah